Quotidien jamono joojee nag enquête daal di dellu soit ci mbirum parrainage yi daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk ne échec dëgg la ndax nag bu ñu naree jàllaat ci ñaareelu tour bi nag am na candidat yoo xam ne boo moytuwulee du ñu bokk ci les élections classement bi jëm ci candidat yi nag ñu koy xaar tey jii ci juróom-ñaari sage yi nag coowal doublon externe ak interne yi nag lu jëm ci wàllu parrainage yu ñu reconnaître la loolee waral nag yéen kaay bi samp ab ni à qui la faute lu mu ci mën ci doon nag am na jeexi jaaxa gu rëy nag am ci fichier électoral bi bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi bi di Walf Quotidien jëm nag ci saytu gi nga xam ne moo soxal wàllu parrainage yi Mimi Touré nag ma nga fay samp ab laaj ne ci ban ficier nag lañ war a tënku waa Pastef ci jamono joojee nag di xam ne ni daal ay falsification rek moo am ci bile fichier Elimaanu jëwriñ ji moom la yéenekaay bi di Le Quotidien xëy fësal ci xëtam bu njëkk muy àddu rek ci wàllu parrainage yi ginnaaw mi Touré Boun Abdallah Dionne ma ngay ñaxtu nag ci organisation bi ñu amalee wàllum vérification yi 24 heures xam ne ni nag mig mag dëggantaan moo am ci wàllu fichier électoral bi yoo xam ne rek Sénat mu ngi koy yëglu mu di scandale bu ñu sukkandikoo ci Aminata Touré moo waral nag Mimi Touré ne waa conseil constitutionnel ana ci ban fichier la ñu daal di tënku rek ngir mën a saytu lu jëm ci wàllu parrainage yi mu yokk ci ne lii xeeñ neexul daal ci leeraanga gi ñuy sàkku rek ci élection présidentielle yu 25 février yéenekaay bi di l'info dellu siwaat nag ci chance yi nga xam ne moo dese nag lu jëm ci wàllu saytu parrainage yi jëm nag ci ñi nga xam ne ay ponkal lañu ci wàllu politique bokk na ci Idrissa Seck Mimi Touré Boun Abdallah Dionne Malick Gakou Bougane Gueye Dany Aly Ngouille Ndiaye ak Diomaye fay journal bi nag di xam ne ni daal moo xam muy Idi Diomaye fay gàkk wala Boun Dionne ñoom nag bu ñu amee gap bu ñu mën a mottali ba mën a jàll ci yooyee parenage am na ci ñoo xam ne nag am nañu jafe-jafe jamono jii yéenekaay bi ne ku ci mel ne Boun Dionne Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao ñoom bu ñu leen éliminé gàcce dina leen rey ci kanamu Macky sàll ak waa Benno Bokk Yaakaar docteur Abdourahmane Diouf di sàkku ci biir yëglekaay bi ñu amalaat ab tirage au sort Thierno Alassane Sall di ñaawlu nag boobee jamono faa yi nga xam ne rek moo am ci système bi bun jonn nag ñaawlu itam doxalin gi nga xam ne rek ñu ngi koy doxalee ci wàllu parrainage yi nag mu jàpp ne lu ñu mel daal dafay nasaxal suñu démocratie tribune yëglekaay dikk ci élection présidentielle yu atum 2024 yëglekaay bi ne ñoo ngi jëm ci ay sélection yoo xam ne rek dafa jëm ci xàllal yoon kii di Amadou Ba lu jëm ci mbirum Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall ñoom seenu bokk leeragul ndax bor bi nga xam ne rek mi ngi ci seen ndodd ñu war koo fay état bu Sénégal Vox Populi nag di ko feelu jëm ci élection présidentielle yi ñuy waajal ci weeru février février fii ci Sénégal lu jëm nag ci emprisonnement bu Ousmane yi nga xam ne rek ngi koy amal ci géej gi fitna gi fi amoon ci weeru juin atum 2023 loolee lépp nag di ay jafe-jafe yoo xam ne rek kii di Michel Raymond dellu suwaat na ci rawatina jàngat bi mu amal jëm ci wàllu politique bu Sénégal ci yëglekaay bi mu fay xam ne nag ne tension moom mënta ñàkk ci wàccaayu élection waaye nag am na confiance ci askanu senegal ci seen taxawaay ngir doxal lépp lu jëm ci wàllu démocratie Le Soleil yëglekaay tey jii ci wàllu tàggat yaram ca la àddu jëmale tàmbalee yéenekaay bi ne Sénégal seul contre tous groupe C bi moom jongante yi naru ñoo yomb ci Sénégal réew mi sport nag di ko feelu ne CAN 2023 bi kay jamono ji nag ku ci mel ne Seyni Dieng ak Boulaye Dia ñoom ñu ngi ci yoonu forfait record yëglekaay dellu siwaat nag ci match amical bi war a dox ci diggante Sénégal ak Niger 18h lay doon yéenekaay bi ne jongante tàggatoo bu am solo lay doon yëglekaay bi di l'indépendant dikk ci xeex bi nga xam ne rek moo jëm ci wàllu trafic international ci wàllu drogue juróomi commando yu marin nag des nañu ci géej nag ma ngay soupçonné daal ab opération de sabotage boo xam ne rek amal nañu ko ngir suuxal bato bi su ko defee nag ñu bañ a am benn preuve yëglekaay bi ne fukki élément ak juróom-ñaar yi bokkoon ci équipe d'intervention bi nag ak fukki membre yu équipage bi ñoom jamono ji nag teg nañu leen loxo libération feelu ko ne ay colombien ak syrien la ñu jàpp ne nag ñoom seen loxo jugul ci bile sabotage. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen de